auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ah, ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant Serigne Touba bu wér di nuyu mbokku taalibe yi ak kilifa yi ñu fekk ci jataay bi muy waa daahira Muxaddamatul Xidma ñun ñi ngi waxee ci turu subulu salaam Touba Bilbao Espagne ki suñu jëwrin Mouhamadou Ndiaye mu yabaloon ñu fi ñu doon indi addi daay mu daayira Muxaddamatul Xidma bi ñuy dajale ci Espagne ci njiital Serigne Fallou Dia loolu nag suñ ko defee dafa fekk ne ñu nekk fii ñun ñoo fi teewal waa daayira Bilbao ndaje mi nag xëy na ñi fi nekkoon ëpp na lii waaye xat-xati jamono yi ak dëkk bu xaw a bëri ndox mi moo tee ñu bëree bëree bëri waaye su loolu jàllee ñu ngi sant yàlla bu baax na ci ñun teewe gi ñu ko teewe ndax liggéey mu Muxaddamatul Xidma yàpp naa ne fii ci Touba ñëpp gis nañ ko taxawaay bi muy kilifa yi ko taxawee ak ni muy demee ak ni muy doxee loolu ñu ngi ciy sant bu baax a baaxa a baax ñun ren bi ñu ko teewee di sant bu baax na suñu jëriñ Mamadou Ndiaye xam ne moo nekk fële ca Touba Espagne Bilbao nekk président daayira Subul Salaam ci Espagne su fekkee ne ci côté euh, euh, mu xaadimatul xidma bi ku ñuy wax Serigne Fallou Dia moom moo ko fay laaj ñu teewloon fi doon fi indi adde yoo xam nañ ko dajaloon ci Touba Bilbao bi ñu ñëwee te nañ ko ci loxoy kilifa yi fekk nañ fi kilifa yi fi war a fekk ñu jokkoo ñoom bi ñu ñëwee nañ ñu joxe nañ adde yi ñu ngi àndoon nag ak sëñ Mayib Ndiaye di rakk ci président daayira Subul Salaam Touba Bilbao man maa ngi tudd ñi Gningue nekk président organisation daayira Touba Bilbao Espagne ñi ngi sant bu baax nag tey soññ suñu mbokk murid yi suñu mbokku taalibe yi nekk ci àll bi te xam ne jëf ji moom àgg na fi mu war a àgg agsi na fi mu war a agsi ndax fi ñu waxee yéen ñu ngi ci jumaay Touba ji ci waa daayira Muxaddamatul Xidma di leen jébbale adde ji loolu dañuy jàpp ne loolu moom ab sas la bu rëy rëy ci ñun ndaxte jàpp naa ne toujours ñu ngi koy wax ne wax nañ su fu ñu toll ñu ngi dégg ne waa daayira Moukhaddamatoul Khidma xamee nañ waa Touba Bilbao loolu nag seen jëf moo ko waral te jàpp nañ ne jëf moom li ca gën mooy fu ñu mën a toll rek ñu ko yëkkati fexe mu bañ a laal suuf ndax dañuy dégg ñu ne kilifa gu mag dara wax naan as góor moom saa yëkkatee dara ba la mu ko teg rek war na ko teg ci war na la ko war a teg waaye ko teg ci maanaam ci loo xamante si ni dañ naan acam kon nag ñi ngi soññ suñu mbokk yi ñu nekkat ci àll bi di ànd nekk ñoom ñu fa nekk di liggéey sëriñ Tuubaa foofu noonu ñi ciy soññ ñëpp ci àdde ji te xam ne jëf ji moom lépp lu waay di lépp lu waay raw ba mu ko jëf yaa ngi toog fee nag ñun ngi sant yàlla bu baax a baax a baax parce que ña ñu fa jiit ak ña ñu fa àndat gis nañ liggéey bi na doxee ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax di sant ñëpp di ñaan yàlla suñu borom nangul ñu jëf ji te lépp lu ñu man ren su ñu man lu ko ëpp di ñaan tamit kilifa fi nekk di doxal liggéey bi yàlla na suñu borom may kàttan wéral leen defal leen tawfeex daal ba léegi fu ñu ko bëgg a rek ñu àggal ko ci barke Serigne Touba mi tax la ñuy ñaanal ak gidi gam jiite murid mu jiite murid mu liggéey Serigne Touba ci yàlla na ko ci yàlla may ndam ak Serigne Fallou Dieng mi nga xam fi taxawal baaxa laayir mu xaddimatul xidma bi di ñaan yàlla lépp luñ mën a rënd si yoon yàlla mel du ko ëpp di ñaan yàlla na suñ tubaa nangu jëf ji te yàlla na ko tubaa ful barki borom tubaa jërë ngeen jëf shan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaar di leen rawatina ci gàmm gi ñu génn eh, te daayira Muxaddamatul Xidma doon ko taxawee fii ci jumaa ji muy jotaay bu dal xel bu am solo boo xam ne rafet nañ ci njort lool yàlla na sëriñ bi nangul ñu te jégal ñu suñuy bakkar te defal ñu tawféex ak tey taysir euh, di nuyu sunu mbokki taalibe di sëriñ Aliou Ndiaye jiite organisation ci daayira subulu salaam Touba Bilbao ak sëriñ may njaay moom di rakk ci euh, euh, jëwrini daayira subulu salaam di sëriñ du njaay di ku baax ku bari Pastef ku am yéene ci liggéeyal sëriñ Touba ñu man cee seere du bëree bëri ñu ki doon tamit ñu ngi nuyu sëriñ Fallou Dia moom mi nga xam ne moo fa nekkal daayira Muxaddamatul Xidma di soññee liggéey bi di nuyu tamit jëwriñ yi nga xam ne ñoo aju ci daayira Subulu Salaam ñëpp fàttewuñu kenn di leen sant bu baax di leen gërëm di fi wuutu nag kilifay daayira Muxaddamatul Xidma Euh, ci njiital sëriñ Afia Bousso mi nga xam ne moo jiite liggéey bi sëriñ Afia Bousso imam ma teew fii ngir teewal fii daayira bi ànd ak sëriñ Abdul Ahad Bousso maam Asta mi nga xam ne moo jiite commission sociale ak relation extérieure ak euh, Abdul Ahad Bousso Thierno man mi wax ak yéen jiite commission culturel bokk tamit ci relation extérieure di leen dalal di leen ñaanal di leen sant ci turu daayira Muxaddamatul Xidma ndax liggéey bi ñoo ko bokk waaye mën nañ cee seere ay kaddu yoo xam ne pas-pas boo xam ne Touba Bilbao am nañ ko ci te mu yàgg lool ci depuis bi nga xamee ne samp nañ fa liggéey bi boobaak léegi mi ngi bëgg am at ndax mille mille 2012 lañ fa àndoon ak sëñ Mamoor ñëw fa biñ defee discours ci mbooloo mi ba noppi rek ñoom lañ gis ne jëwri ni ci saasa dañoo daje nga xam ne ñoom ñoo ñu contacteel suñ bopp wax ne tëral nañ benn commission ngir xam ne liggéey bi farata la boobu ba léegi nag teggiwuñu seen tànk moo xam koor la moo xam màggal saa su nekk danañu indi seeni addiye indi ko def ko ci liggéey bi moo xam ci entretien bi la jëm moo xam ci social bi nga xam ne Cheikh Mahamadul Muntaqa moo ko digle woon tamit loolu tamit di lu am am solo loo xam ne e, daayira Moukhaddamatoul ma bàyyi nañ ko xel bu baax a baax kon ñi ngi ñaan Serigne tubaa mi nga xam ne moo tax ñuy jëf tem soññe woon ci barab bii dige ci day la ci wax ne ku ci feeñ dootoo réer ku ci réer dootoo feeñ kon yàlla na doon ak feeñ ba faw tey ñaanal bokki taalibe yi fa nekk képp koo xam ne am nga jafe-jafe ak càkkuteef loo xam ne yaa ngi koy bëgg ci darajey waxtu wi ak barab bi ak addiya yi ngeen andi sunu borom saafara ko sunu borom it yokk jumtuwaay yi joxe ay man-man ba liñ bëgg a liggéeyal sëriñ Tuubaa lépp ñu mën koo liggéey barakati xaadim rasul sëriñ bi mën na ko kon yàlla nañu ko defal ñu ngi sant bu baax di leen gërëm di ñaan sunu borom defal ñu tawféex ci darajay wax di hawaïji lazina daamu fi xidmati wa hablahum maraamu bi barakati xaadim rasul assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa